nous allons passer la parole à Borom Dakaru honorable Abbas Fall mu dalal ñëpp ñi nga ne ñoo ñëw tey teew ci bis bi honorable Abbas Fall merci beaucoup dama bëggoon ngeen may ma bala ñuy démarrer ñu def une minute de silence s'il vous plaît à l'endroit qui ont été assassinés par le régime de Macky Sall. Une minute de silence, s'il vous plaît. jërëjëf merci beaucoup mbokk ñu ngi nuyu principalement di nuyu le président Ousmane Sonko jël bis bi tey ko la jeunesse patriotique du Sénégal en particulier et la jeunesse du Sénégal en général monsieur le président votre jeunesse est là. Cette jeunesse à qui on doit rendre hommage aujourd'hui. Cette jeunesse, Monsieur le Président, qui a donné de son sang, Monsieur le Président. Cette jeunesse a donné sa liberté, Monsieur le Président. Vous avez tout donné. Vous avez tout donné à ce grand homme. Et je sais lu tax ngeen def ko da ngeen ko def parce que xam ngeen ni le président Ousmane Sonko ne va jamais vous trahir. da ngeen ko que un ancien président de la République m'a dit que le président Ousmane Sonko n'est pas seulement le soleil qui brille sur le Sénégal il est le soleil qui brille sur toute l'Afrique seen bés la on vous rend hommage si aujourd'hui le président Bassirou Diomaye Faye a été élu c'est grâce à la confiance que vous avez eue au président Ousmane Sonko donc je vous rends hommage aussi tay muy bis bu xawati si ñun ñu fàttaliku ndaw yi ak jigéen ñi nga xam ne dee nañu pour projet bi bu ñu leen fàtte bu ñu fàttee ces prisonniers politiques qui sont nombreux ici je vous rends hommage bu ñu fàttee les blessés bu ñu fàttee les blessés y en a certains qui sur sur des fauteuils roulants bu leen leen fàtte xam ngeen lu tax ma leen koy fàttali pour ngeen xam ne tey projet bi dafa am lu bari luñ ci daj ngalawaay yéen la jeunesse du Sénégal bu leen ko yàq pensez à ces gens-là parce que tant que vous penserez à ces vous allez faire mieux. Monsieur le Président, on vous rend xam naa ni bëggul ku wax ci moom mais il faut qu'on rende hommage à ce grand monsieur. te mu xam ne monsieur le président xamal ne nekkuñu sa ginnaaw sa kanam la ñu nekk nous serons à votre gauche. nous serons à votre droite jamais derrière pour vous accompagner lépp lu waree ñëw nar a sa kaw su ñun lay jëkk a dal ba pare monsieur le président tey donc donc donc une chose est d'être au pouvoir une autre chose est de durer et de durer au, au niveau de ce pouvoir êtes-vous a à accompagner monsieur le président Ousmane Sonko êtes-vous prêt à accompagner le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye que d'accord ma ñu naan vingt ans cinquante ans ce pouvoir sera transmis de génération en génération de siècle en siècle et ce sera aux côtés de notre grand président le président Ousmane Sonko maa ngi leen di gërëm di leen sant le projet encore le projet et toujours le projet merci à l'honorable Abbas pour ce discours nee na nañu gën a projet bi accompagner ñi nga xam ne ñooy suñu njiit projet bi du yëfu benn du yëfu ñaari fan on doit être conscient des enjeux et cette jeunesse là j'espère qu'elle est consciente et nous avons toujours été avec cette jeunesse qui a lutté et qui a été très résiliente merci à toute la jeunesse nous accueillons l'honorable Aïb Dafé Dapé, secrétaire général du parti. Salam alaikum la jeunesse patriotique du Sénégal. Salam alaikum la jeunesse du Sénégal. Salam alaikum les patriotes. maa di nuyu yéen ñëpp tur ak sant di leen jaajëfal di leen féliciter parce que tey suñu néewee projet bi c'est d'abord la jeunesse. moom moo taxaw xeex projet bi moo taxaw défendre projet bi au côté du président Ousmane Sonko ba projet bi yegg si tey fu mu yegg tey en tant que secrétaire général on a vu la JPS à l'œuvre c'est pourquoi je voudrais rendre hommage aujourd'hui à tous ces jeunes xam ne ñoo ngi woon si JPS di xeex pour que projet bi yegg si fu mu yegg tey tous ces jeunes qui ont été tous ces jeunes qui sont des prisonniers, qui ont été des prisonniers politiques, tous ces jeunes qui ont été pour la réussite du projet. di jiital si jeunes yooyu ñu mel ni Ibrahima Thiam qui a été de la JPS jiital si jeunes yooyu Babacar Ndiaye et tous ceux qui ont œuvré dans la JPS jiital si également le coordonnateur de la JPS maître Ngagne Demba Touré qui s'est sacrifié également pour le projet yaakaar naa nag. sacrifice bu ngeen def ne sera pas vain le président Ousmane Sonko l'a dit c'est une victoire d'étape nañu am actuellement te yaakaar naa ni lu ci des moo ëpp solo mooy la mise en œuvre du projet de transformation systémique avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye c'est le principal combat bu ñu war a mener pour le développement du Sénégal pour le développement de l'Afrique ñoo ngi jaaj jaajëfal ñëpp di leen wax ngeen gën a taxaw di leen encourager pour que mise en œuvre du projet bi mu nekk une réussite le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le gouvernement du premier ministre Ousmane Sonko si seen orientation majeure yi ak seen priorité yi la jeunesse est au cœur du projet l'emploi est au cœur du projet le développement du Sénégal est au cœur du projet donc tey la ñu gën soxla seen taxawaay tey nañu gën a soxla le don de soi de la patrie bu ngeen incarné jusqu'à présent donc lu ñu leen di wax lu ñu leen di ñaan mooy toutes les 46 coordinations départementales de la jeunesse patriotique du Sénégal le bureau exécutif national tous les jeunes qu'ils de la JPS la jeunesse sénégalaise entière restez debout restez fiers derrière le président Ousmane Sonko avec le parti PASTEF avec tous les patriotes J'en profite pour remercier tous nos alliés qui sont aujourd'hui présents. J'en profite pour remercier également les avocats, Maître Juan Bamba Sissé, ñëpp ñu fi teew tous les avocats parce que eux également ils ont contribué à la réussite de ce projet. Maintenant nag effectivement on est arrivé au pouvoir aujourd'hui